bu ñu demee alaxira it noonu rek waaw ñun yàlla duñu buggal bu kul waxal ina rabbi naka borom sama yëpp si dina mu yaal xawr sax li ma ñu saaw ñeel ko mu soob yàlla dina yaal wërsëg ñeel ku ko soob ngir nattu ko rek wayax duñu dana mu tisal wërsëg ñeel ku ko soob dana xatal wërsëg itam ñeel ku ko soob boy daf koy natu walakin na lu fi nekk ak naa si gën ja bëri yéfaru màkk laa yàlla mun a xamuñu loolu am amwaalukum waaye déet ay alal seen wala awlaadukum du jaage na ay doom seen bi la tiiti laara tuqarribukum dana mu jegeña leen indi naa fa nun sulfa ak jegeñ de waaye xalal ak doom du mooy jegeña nit yàlla de illaa lu fi nekk maanaam nag gëm na mu waaye mi ne dem jëf saari am jëf jiw de du may koo xam nag ne gëm na yàlla jëf jëf jiw ci xalam alalam wulaay ka ñëwee la gaay la wum ñëwee leneen jasaaw fay ak de bi ma amee loo jasaaw si lañ jëfoon de ba mu sa ñëw sul way nekk lañ ci taax ko wi na koy wëru yëfara ngoog dañu war foog ne daraja yi àddina mooy bëri alal xam daraja fa nit ña te loolu tekkiwu dara fa yàlla yonent bi na yàlla na ne du seet seeni melo du seet seeni alal waaye mi ngi seet seeni xiina ak seeni jëf xiina ju baax ak jëf ju baax kooku mooy jegeñal jaam yàlla su bëri alal su xeeboo dara fekkee loolu jaam rafet na ca te ki dara fa yàlla su fekkee ni bëri woon na xaral sax moo tax yéen yaa ngi bukkare seen xaral ji yàlla di leen wax ne seen xaral ji duñu leen du leen jegeñal fa yàlla de yàlla nag dafa seddale wërsëg yi te xeemalewu ko ñii jox na leen wërsëg bu bari ñii mu jox leen wërsëg bu néew yooyu yëpp ngir nattu rek la jaam ci bari wërsëg ndax dafay sant yàlla ci wërsëgam wi te def ci li ci war am daf koy réyloo waaw xeeb ki nga xam ne moom amul dara ki nga xam ne yàlla dafa néewal wërsëgam ndax dafay añaan ki yàlla jox am du ko añaan waaw dafay muñ te bañ a añaan ki jox su fekkee ñoom ñëpp ci ne def na loolu waaw kon jubal nañ de koo ci xam nag ne waaw mooy nga la nga xam ne moom la yàlla bëggoon ci yow moo taxoon yàlla di la nattu ci a ji bari na bu borom muccee yonent na ne ñi gën a bari alal ñoo gën a néew la yàlla ñi gën a bari alal ñoo gën a néew la ci ñi gën a bari alal ñoo gën a néew la ci yàlla lu may koo xam nag ne ma nga alalam def ko nii jëmale ndeyjoor jëmale càmmooy waaw jëmale kanam jëmale ndeyjoor jëmale càmmooy waaw mu ne ñu néew la ñu néew yi bari alal di joxe bu dee iblis na bi na ne iblis na ne borom xaalis ju bari du mën a mucc ci man mucc ci kenn ci yetti ji koy de benn ba nga xam ne du jënee nga dindi àq yàlla wala ma soppaloo ko xaalis ja ba mu fàq ko ci fàq yi woo du du wala ma yombalal ko am-am ba ba tax mu soppaliku ko ci du du dëgg borom xaalis néew na mucc ci kenn ci yett yooyu ñoom nag ñoom ñi nattu néewal seen wërsëg ñooy dëkk ca fii ki aljana ya ca baax ko aljana ya rek yonent na ne sallallahu alayhi wa sallam ay kër ci aljana yu ko yoo xam ne ñooñu aljana dañ koy séentu ñu ngeen di séentu bi di jaasama yoo xam ne kenn du ca dëkk lu mooy yonent bu ñàkk ak saaliw su ñàkk ak sayid bu ñàkk ak jurit bu ñàkk waaye ñi moom ñi di jënd ata la yonent yi yonent yi ñàkk ata saaliir yi dara ñooy xàgg ci kër ata ñi seyit ñi dara ñooy xàgg ci kër googa de na ne ku yàlla bëgg dafay gat wërsëgam muy lu xem rek ci ngëm te mu may ko cët bu law ci julli muy julli julli gu mat su ko su dee du bëy miraas mu bari du bëy bari bu yàlla bëgg noonu la koy def de yonent ci boppam ndax daa yàlla yàlla nga ma dundal may miskiin yàlla nga ma rey may miskiin yàlla nga ma fang ca mbooloo miskiin ya def <coughs> mbooloo ci saaba yi ñaamuloon dara mas nañu ñëw ci yonent tawat ne ko borom wërsëg yu bari deme nañ ci wépp suñ ne goreel wax nga wax nga ngëneel ngëneelal goreel jaam ñoom am nañu jaam ñu daldi goreel suñ ne sadaxe ñoom am nañ alal pare ñu daldi fab sadaxe suñ ne jihaad suñ ne aj màkke yëpp ñu def ko ci seeni xalaat ñun nag dara dara dara borom xale bari deme nañ ci walis ñun yonent na leen bég leen wax subhanallah wala ilaha illallah wala akbar borom xalal yi sa la xewoon mboolem xalal lamit ba am yool ba nga xam ne am nga ko ci ba wax gi nga de te ñu ñàkk ñi danañ duggaal ba am juróom juróomi téeméeri at xam ñi soog a de ndax ñu xam ñi ñu nga leen di isaab ñi soog a demal janna ñoom dañuy daal dem rek dugg aljana rek ca ay gërëm gi ca aljana ñàkk ñu kontaan lool daal di dem waxtaane ko yooyu la suñu ñëw ne yonent mbir de waa ji nga waxoon ne suñ ko waxee bu borom alal yi sadaxee seen alal yi ne ah loolu la nga ne yàlla wala si ne ñaane yaxtaana danañu jëfe aadna ci yàq alquran sama def ci tudd na mu yaal risq wërsëg li ma yashaaw ñeel ku mu soob dina baat yi ci jaamam ngir natt ko de wa yaqdiru dana mu tiisal wërsëg ñeel ko soob doo ñeel ko soob ngir natt ko la oo moom yuxlifu dana mu wutal ko de oo moom xaru raas xene maa ji gën way wërsëgal te borom alal lépp lu mu dundale yàlla ko doo ko soob ngir natt ko de wa ma anfaqtum lu ngeen dundale min shay'in ci daara moom alal la oo moom yoxli ko dana mu wutal ko de oo moom xaaru raasi xene ma aji gën war koy wasagal ñe de te borom alal lépp lu mu dundale yàlla dana ba noppi warul ko yoolal ba alayhi wa yaar maa ngi koy solo te di leen géyal jaam duñ ko tooñ mukk tooñaange goo xam ne mën na koo fayu mu muñ jéggale ko lu may yàlla dafay yokk dara jaam jaam mu dindi jaaralam sadaxe sadax soos dara jaaral ja léeg-léeg dafay taxaral ja gën a bëri ndax loo joxe rek yàlla dana wutal leneen na jant bu fenk yaari malaaka nga ko séq ñi malaaka ngi ci nday joor a jant bi di wax naa yow yàlla joxal ab joxekat lu huutu lam joxe woon malaaka mi ci camoy bi naa yow yàlla joxal ab téyekat ak cànkuteeg alalam kii mi ngi ñaan daayiman ku na ko yàlla huutalal leneen kii mi ngi ñaan daayiman ku bañ a dundile yàlla na yàlla sànkaaralam loolu tax moo gën a ku gën a bëri dund de moo gën a bëri alal de xuutal googe yàlla di xuutal mooy bëri la alal moo tax be alal su bëree ba bëri sax da nga ciy gis xeet woo xam ne suñ koy jóor muy net li baat boobu naa ñaari dërëm la bii mi ngi ci mbagg mi bii ci tënkali bii ci rek yoon ci mbagg mi accident ko tëyee nag yoon ci mbagg mi itam taxaw benn wàll yi daf daa def. nekk ci di jaamu yàlla di jaamu yàlla rek soo xamee ne lekk jot na rek yàlla daal di ko rottalal benn mburu mu lekk benn bés nag muy dox gis mu for ko def ci jiwaam baañ jotee mu xaar xaar mburu ma mburu mu laaj laaj mburu ma ñëwut mu tawat yàlla ne ko waa armi maa fil jay bi yaati ka maa fil xay bi sànni li ci xay bu yàlla ga ñëw wa ma anfaqtum lu ngeen dundle min shay'in ci laala moom xaral la oo moom yàlla yuxlifu ko dana muutal ko oo moom xaral aji gën way wërsëgal ña def xaral la de bu fekkee ni tey borom ragalul yàlla toppul yàlla du dara fay tax a sori yàlla rek su fekkee ni borom gëm na yàlla bëgg a topp yàlla mooy li yonent ne baax na bu nekkee ci loxol waa ju xiw de adduna mooy daaba ji nga xam ne ci nga war ci nga mën a war ba àgg ci àlaaxira moo tax ba nit su yal na yàlla rëbb ba àddina àddina dana ko yal na yàlla rëbb waaw ku gën a mooy yàlla ci ñun man ak yow de man defuma dara barhamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy